boo ñëwee hôpital la Dantec tey mu posé problème dinaa dellu si ci mbay mi bàyyiwuma ko damay dugg ci Dantec bi doog a dellu waat ci mbay mi boo demee hôpital la Dantec li ci gën a yéeme mooy 60 ans après on ferme un hôpital qui ferme un hôpital ouvre un cimetière te fan yii fan yii fan yii suñu deful ndànk suul mi dina tar lool ci cimetière yi ndax génne malaat boo xamante ni li mu soxla woon mooy ak dal mooy quiétude nga xëy génne ko di ko ku ci am mbokk de sa fit dem na te xamoo ci yan condition lañ koy yóbbu li ci gën a yéeme mooy ñàkk yërmande giñ ci boole te kenn déggu ci assemblée nationale parce que buñ ne ma biñ koy tëj assemblée fekk na seen dé seen kii jeex na te ñiy jëlaguñ fonction déedéet ndax processus bi yàgg na xanaa nëbbu ñu ko woon di ko di ko lijjanti ci suuf bañ ko yëgal assemblée nationale ana commission bi yor wàllu santé au niveau de l' assemblée nationale. ba ci biir Covid bi kenn déggu leen kenn xamul marché yi ñu ci jox nan lañ ko joxee kenn xamul ñan lañ ko jox kenn xamul nan lañ ko defaree loolu mënul wéy te loolu moo tax député am solo ndax loolu mooy liggéeyam de l'action de l'exécutif et évaluation des politiques publiques donc Dantec li ci gën a métti nag du loolu li ci gën a métti mooy jaayum suuf mi ñu nekk ci réew mi gis nga Sénégal fi ñu jëm léegi ci kanam ma ciy may may bàyyi xel bu baax waa jàmm gën am na ñu fa nekk ñoo xamante ni ñoom jëwriñ yaakaar naa ñoo ngi ci jotaay bi ñoom Abou Diagne seen xeex bi gën a mag mooy cimetière fi mu ne loolu la ñu bëgg ay ndaw xam nga ndaw ci réew ndaw boo xamante ni xeexam bi gën a mag mooy ay waay nañu am cimetière fu ñuy suul xam nga ndaw moomu réewam yaakaaram jeex na ci réewam ndaw ak ni mu amee solo nga xam yàlla sax bu yónni ndaw lay yónni ndaw boobu amul benn yitte bu dul lijjanti cimetière waaye ñoom abu wax nañ dëgg ak ñoom jëwriñ ndax li gën a métti mooy nga am néew te amoo foo suul te Sénégal foofu lañu jëm léegi rek parce que ni ñu nekkee di caxat caxatee suuf si. loolu moo tax ñun bu ñu eggee assemblée nationale dinañ ànd ak kuje gi incha allah ñu def benn commission d'enquête parlementaire sur commission bi nga xamante ni moo yoru wàllu domaine commission domaniale pour ñu xam suuf si ndax li ñëpp bokk ñëpp ngi ciy jot wala déet ndax mënoo ñëw jël suuf soo xam ñëpp ko bokk ñenn rek daal di koy pasar pasar yi daal di koy jël. denc ko ba dencal seeni sët te fekk na boobu am na sénégal yoo xamante ni yitte woon nañ ko te mënuñ cee jot li gën a yéeme sax mooy tey am na dëkk yoo xam dañoo bëgg a tabax école te amuñu fuñ ko tabax Guet Ndar nee nañ leen amuñu suuf bu ñu tabax seen école primaire te au même am na yeneen suuf yu ñuy jël di ko caxat-caxatee suuf soosu ma tudd ci Dantec te nga xamante ni du dëgg du yoon ci ci nii ñu ko defee te ñun dinañ ko xool ba xool ñan lañ ko jaay ak lu tax ñu jaay leen ko ak lan lañ fa nar a def ndax tamit hôpital tamit mënul lëkkaloo ak lu ne kon lañ fa war a def sénégalais yi war nañoo xam lan la loolu yaa rien de plus normal et c'est pas trop demandé wala ñun léegi moomatuñ suñ suuf Sénégal nag cent quatre-vingt-seize mille kilomètres carrés la tey jii boo demee dëkk bu mel ni Japon su nit faatoo dañuy xool ndax am na héritier su ko amul gouvernement bi day daw jël suuf si téye ko ndax suuf mooy matière première bu njëkk bi dafa am solo lool mooy mënuñu koo jël léegi di ko pasar pasaree di ko caxat-caxatee kenn xamul kan moo ko moom donc li xew la Dantec dama jàpp ne c'est un scandale te dama jàpp ne ñàkk yërmande daf ci feeñ ñàkk ma daf ci feeñ ñàkk itte tamit daf ci feeñ donte xam naa ne le directeur de l'hôpital la Dantec jàmbaaru fàkk tëdd la liggéeykat la waaye mbir mi gisul dara yëgul dara dañ ko yëgal